altine la le 10 mai jamono 9h30 ci suba japp 10h yeewoogu ma ndax ñoma ma motax ci waxtu yooyu laa jàpp waaye xooluma montre waaye ci waxtu yoy lay wara a doon am ku feug sama buntu nek insisté bi mu waxee ci sama gone keur kër gii la gone yu jigen yi nga xam ci juroom ñaareel lañu toll wala juroom ñetteel ci la jóge ubbi sama buntu nekk ubbi ma buntu bi yépp itam luy to lu sama bop bop mëna genn bama wax ak mom rek la la ubbi ci buntu bi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 pour moom commissaire fay mbir yep jeex na da jàpp ne damay juk wara juk jug ñibbi ma ne ko déedéet non demeewut noonu da ngeen ma fekk sama kër def ma ni ngeen ma def manoté ma ci sama buntu kër sama bokk ñepp romb ma sama der tirim da ngeen japp ne man may dem nan dañ ma jaawale yow mi def yónni ñi bañ def li ñu def nga ne danga ma jaawale ci dañuy and nga dem ci sama kilifa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 sama wajur ak seigne Moussa nawel commissaire sar bu déggé sama kilifat fofu la koy dégg ñu dal di juk yëkëti kaddu commissaire sar jëlu fa kàddu commissaire fay fa yëkëti kaddu comme nonu ma waxé ñu juk and ak seigne Cheikh Abdou Latif ak commissaire sar ak commissaire fay ñu ñëw fi lañ toog ci sama kan wajur ay bokk yu bari fekk nañ commissaire fay wax ni man kat ma jaawale kër Basirou Touré ak kër Basirou mbacké jaawale jëmmi Basirou mbacké ak jëmmi Basirou Touré ba jëf-jëf ji ma ngi jéggulu wax ko ci kanamu sama wajur ñu jóge fa dem ci seigne Moussa nawel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 maa yub ma yub mbiri ci yoon lama ma leen wax itam muy serigne Moussa Nawel mi sama kilifa di sama jëwriñ wax ko serigne muntaha moy bu yoon defé liggéeyam ba ni Bassirou mbacké tak na ci wala laale na ci mbacké bu leen ma tinu ndax bu ngeen ma tinoo seenub dar dana tilim ndax bu boba seenu njabot mo jubadi te bu ngeen ko tinoo seen dar tilim te man duma tilimal seen dar bu fekké ni yoon sétal na ma nak bu boba yoon aduna bipp dana xam ne Bassirou Mbacke ab daram set na wu ci